depuis lors événement yi ñu ngi koy am parce que li nga xamante ne moom mooy situation actuelle lu dëkk bi neexul kenn waaye amaana ñu ngi doon xaar peut-être depuis deux mille vingt et loo xamante ne dañ koy teg ci table ji du côté de de de Adji Sarr ak ñi mu àndal ak ñi nekk ci complot bi yëpp di ko urdir loo xamante ne dañu naan dossier bi jeex na parce que jàpp jàppale président Ousmane Sonko mais depuis lors wax dëgg yàlla gis nañu li fi xew chaque fois Sénégalais yi dañuy gën a ñëw di rallier à la cause de Pastef loolu nag lan moo koy findeel moom mooy kàddu dëgg ci la ñu nekk te nag dëgg boo ci nekkee moom mu neex ak bu naqari doo ko wàcc donc actuellement nii ñun nous sommes force parce que nu nous savons pertinemment que le peuple est avec nous état d'esprit bi moom mooy animé li nga xamante ne moom mooy responsable Pastef yëpp moom mooy animé également militant Pastef yëpp parce que xam nañ ne ñoom wax dëgg yàlla fi ñu teg seen tànk euh, doo dafa nekk foo xamante ne fu wóor la te jusqu'à preuve du contraire ñi nga xamante ne ñoom ñooy tuumalaate wala ñoom ñooy yàq der mun ñu ci teg baaraam ne lii ak lii le président Ousmane Sonko def ci côté boobu donc nag nu sommes sereins comme ni ñu ko waxee euh, à travers la dernière sortie médiatique président Sonko bu fekkee ne les conditions sont remplies incha allahu rabbi le procès dina dem wuy ji ci procès boobu. et justement est-ce que dem wuy ji ci loo xamante ni da nga war a dem jar na moom muy poser ay conditions. non posons-nous la question de savoir pourquoi il pose ces conditions parce que nous pourquoi? sommes dans un état de droit état de droit da nga am ay àq am ay yelleef tey yoon mooy li nga xamante ne dañ la ko tere. waaye droit aussi mooy li nga xamante ne dañ la ko permettre moom en tant que sénégalais boo xamante ne condamné wuñ ko il est libre jusqu'à preuve du contraire am na droit ne bu may dem 7TV wala bu may dem euh, tribunal yoon bi ak yoon bi lay jaar d'autant plus que ni am na ci lu fi xewoon dans le passé duñ ko fàtte dans le passé récent moom mooy ne génn na bakkanam nar ci rot ñu nar ko empoisonné mu génnaat beneen procès ñu bëgg koo jaareeloo ci ay tunnel ñu gis ne ay nervi dañu nekkoon foofu di ko xaar donc nag bu fekkee ne loolu lépp da nga ko dund pour simplement ñu atte la ta vie est en danger donc am na ci loo xamante ne yow devoir moral bi nga am mooy nga sauvegarder véritablement ta propre vie te ci côté boobu la Ousmane Sonko nekk donc di wax ne wuy ji procès gënul sacré dund Ousmane Sonko. la vie de Ousmane Sonko et plus sacrée que d'aller répondre à un procès boo xamante ne on sait pertinemment que c'est un procès politique.